leur maître lu ñuy def yëpp defuñu leur propre chef Macky Sall moo leen di defloo Macky Sall di instrumentaliser et nous suñu problème dëgg-dëgg kon c'est Macky Sall la en réalité. donc euh, ils sont en train de préparer un discours sur le tourisme déjà contre Ousmane Sonko mais pire ils sont en train de préparer un autre discours sur la crise de la Casamance avec la MFDC nous bëgg gëmloo après le monde te euh, de ces jours à venir vous allez comprendre pourquoi ma ils veulent faire croire à la face du monde que Sonko est intimement lié à la MFDC aux rebelles parce que c'est un rebelle Motax vous proposé dans son discours que je peux régler le problème de la Casamance Vous faites qu'un état Sénégal jox na euh, habilitation il veut utiliser un propre parole Ousmane Sonko contre lui pour montrer que c'est un rebelle il va instrumentaliser le sud aujourd'hui ces seetloo ils sont en train de tuer des gens au sud de l'île de di et et c'est pas fait de manière hasardeuse comprenez vous baax que ces sorties là moo xam euh, préfet ministre de l'intérieur moo euh, waaju ñak jom jooju naan bu rek soow nga xamé ne Sénégal ñu warul sax commenter ay waxam c'est quelqu'un qui n'est plus crédible aux yeux des Sénégalais man taxaw diko ko déglu sax di commenter li muy wax man j'en ai mal au cœur wax deug yalla on doit pas l'écouter donc ñi ñep ce discours là si vous analysez bu baax baax ils disent la même chose ils veulent parler d'attentat à la société nationale d'appel à l'insurrection de terrorisme ñetti baat yi ça revient fréquemment ci ñom nga xam c'est pas un hasard Macky Sall nag il a déjà coordonné euh, depuis le mois de février, fin février, il a nommé beaucoup de gars qui n'est-ce pas ñu ñàkk jom ñu gën a gendarmerie je vais pas dire leur nom ils se connaissent ku Ahmed Baye dafa ay postes les décisions de nomination on a nommé général de division ay gars yi des gens de peu de scrupules on a nommé des généraux de brigade des prépare sa machine de répression parce que xam na à réprimer ce peuple là ba ne na n'est-ce pas il faut ñu comprendre bu baax le baax lu Macky Sall jéem def euh, kit ou double le bëgg def aujourd'hui léegi au-delà de ces discours euh, yi nga xam de grands idiots qui ont été promis à de très hauts postes nous ko nekk di déployer et loolu waruñu ébranler ñu Nous la tu yàlla ñu jaaxaluñu ba pare on s'attendait à ça li moom vraiment waruñu jommal donc dafa am un troisième point bi nga xam euh, point bu am solo la qui doit être destiné aux forces de l'ordre n'est-ce pas aux forces de l'ordre yi nga xam qui se qu'on comme des forces de désordre dans ce pays. Ils depuis très longtemps. Ils sont en train de massacrer des gens. Je, moi, je demande d'accord ce sont nos amis. Nous ne sommes pas des amis. Nous sommes dans une matrice. Nous sommes dans une matrice. Nous sommes dans une matrice. Nos intérêts sont divergents. ils sont du côté de la matrice. Ils essaient de conserver, de garder, de pérenniser et de préserver les acquis qui dans la matrice. Nous, nous essayons de, de déboulonner cette matrice-là pour revenir à la vraie vie. C'est gâtal moi que y a un désordre bi nga xam qui est lié à cet appareil là qu'on appelle la République du Sénégal bi nga xam qui ne nous correspond pas ñun li ñuy woowee dëkk Sénégal bi ñun méngoowul ak li ñu bëgg le Sénégal bi tey jii bokk Sénégal bi ñu bëgg na Sénégal bi nga xam ne sénégalais yi nekk ñu si à l'aise aujourd'hui les intérêts yu gën a mag ci dëkk bi ay étranger ñoo ko fi moom lépp dëkk bi étranger yaa ko donc ñun Sénégal dañu sonal nous fitnal, amuñu mot à dire on n'a pas le droit de manifester on n'a pas le droit de dire son avis am ambition nekk président sax léegi c'est interdit dans ce pays là boo bëggee nekk président dañ lay social, sosal la comploté, la comploter la tëj la boo lanceur d'alerte nekk activiste dañ lay douma, taxal la vous la sosal la maanaam gi dafa quelque chose bi nga c'est fondamental euh, bugguñu opposition nous divergence beaucoup nous am ambition ce c'est pas un pays c'est devenu un gros village où il est dangereux d'exister Madame Fina, nag wax dëgg yàlla c'est euh, taxaw ci tournant bi on doit se décider soit on assume ba on engage la révolution pour dire, me changer les choses ou on se couche ba pare mujjee nangu ba pare bàyyi coow bi nag bàyyi wax xam ne wax dëgg yàlla nag sawaa ji euh, moo ñu nañ ko deuxième choix Là, La d'accord en réalité donc aujourd'hui ces forces de défense là am c'est un appel solennel Nous avons seen diggante ak seen xamni Macky Sall va partir Tout ou tard il va partir bu mu leen jaral def yéen yi suma xolé au front aujourd'hui ay xalé yu ndaw yi xamé ñoo doog a école ñu japp di sacrifier len yobu au front pour fitna len pour pour xeex loo leen ak seen askan ils se trompent lourdement de cible ce ne sont pas nos ennemis waaye nous avons des intérêts xamé qu'on va préserver et képp ku taxaw suñu kan fu ñu jàmmaarloog yow dama dama dem vendredi euh, ci place de la nation ville laa njëkkee dama dem ba bir ville gis on a quadrillé la ville ma replié pour ñoo centenaire nous avions une supériorité numérique extraordinaire, n'est-ce pas Mais nous avons été mal organisés. Et bataille, nous ne sommes pas, nous, la violence qu'on nous exerce, nous, on ne rend pas cette violence-là. Et il euh, a fallu nous faire face légitimement et normalement par rapport à cette oppression-là. La machine de l'oppression, mais ce sont les forces du désordre, n'est-ce pas Il faut qu'on se, le dise. C'est la police et la gendarmerie. Nous sommes les garanties de ce qu'on appelle euh, cette fausse république-là. République, euh, c'est un chaos. Il est déjà dans le chaos n'est-ce pas mais son chaos nous am ay gens ceux qui garantissent l'ordre dans le chaos n'est-ce pas c'est les forces de l'ordre ñun nous voulons détruire ce chaos là pour instaurer un ordre quitte à utiliser le désordre il faut ñu comprendre que nous avons des logiques totalement différentes Nous, ak ñoom dañoo mel ni ak Expo voilà Expo nous ñum ak quand Expo de 1 égale à E LN de E est égal à 1 quand Expo de 0 est égal à 1 ln de 1 est égal à 0 nous sommes dans des dimensions totalement réciproques euh, te dañ ko war a dañ assumer au delà de ce de ce de ce de ce de ce état de fait pour les forces du désordre avec les milices yi nga Macky Sall leen embauché milices miliciens, yëpp ànd ak force désordre yi di ñu fitnaal ak di ñu bëgg duma ak j'ai vu des vidéos ça m'a ne sama xol Des vidéos yoo xam ne nit ñoo yor ay pistolet dem di fekk ay ay nit si di tiire ay buntu pour ouvrir tirer pour dire atteindre ay et ce sont des balles vraies Ce du ay du n'est-ce pas du dara ce sont des balles vraies balles vraies on doit faire face à cela C'est nag wax moi c'est sama quatrième point on doit ajuster le combat le combat doit être ajusté il doit être il est inconcevable Nous nous ak ay de destruction pour nous pour anéantir nous ne devons pas accepter d'être anéantis le droit naturel yàlla moo ñu woo ñun ci ñu sàmm suñu bakkan suñu xoolee li nga xam ne moom mooy juróomi ponk yu gën a mag yi nga xam ne moom dañuy wax ñun si wàllu usul yi nga xam ne dañ ñu sant pour ñu protéger ko ndax soo ko loolu moo andi sax lépp lu ñuy wax ci wàllu diini diini bi ñu wax yëpp euh, usul si juróomi la mujjee euh, protéger li ñuy wax an nafs benn ponk la si maanaam aar suñu bakkan waree fa si ñun képp kuy jéem a rey doomu aadama dañ ko war a rey lii mooy la réalité ñuy yàlla jox comme comme comme loi Euh, aynun bi aynin n'est-ce pas on doit tuer ceux qui nous tuent man nak dama japp ne euh, ñu mag force de désordre yi dañu wara am ay kidnapping ni ñuy jappé ay citoyens di leen torturer di leen yóbbu di leen tëcc ñun dañoo war a tamit ay force loolu tamit téy leen tamit mu nek ay gage d'une future édition bu ñu wara am ak ce pouvoir là ce pouvoir de corrompu ni ñuy rayé ay doomu adama ñu war ñu am jamm lu may ray ñu un nombre équivalent wala sax plus que lu ñu ray wax dëgg yàlla parce que ñun duñu ay ginaar duñu ay mbott yuy dox si dëkk bi ñuy tirer comme on veut nous sommes des manifestants yoo xam ne dañuy manifester avec la paix man démb dem na sànni ma benn xër parce que dama am dama jàpp ne dama am sañ-sañ di dox ci biir dëkk bi n'est-ce pas dama am sañ-sañ dox n'importe où dans dans mon pays parce que pays m'appartient maanaam actionnaire la man ci dëkk bi ñu nekk wax dëgg yalla waaye nak suma ma di dox yoruma xeer yoruma arme di jema dox pour exercer un droit qui est constitutionnel su amé ay force de désordre yi xam ñoo ñëw bëgg ma ray du ma leen bàyyi du may rey ku bëgg rey naa rey te képp ki nga xam ne dafa rey kenn wallahi dañ ko war a seet gëstu ko xam fi mu nekk dañ ko war a rey il faut tamit qu'on donne à à ce combat là une dimension sérieuse n'est-ce benn ku si rey dañ ko rey ku si ku si suñuy jàpp ñu tam dañu kidnappé dañu am tam ñuy jàpp bu yàgg ba étudiants yi doon kidnappé ay auto police di ko denc wala kidnappé ay bus Dakar dem dikk denc ko si biir université pour mu nekk ay gage gaz dafa am solo ci biir komba ñaareel ba mais pourquoi ñi am ay xeer di taxaw xeex ak kenn ki nga xam ay armes lay lay jëlee suñu kanam c'est pas normal et c'est pas sérieux mané défar ay armes pour mën exploser défar ay défar ay armes ay ay ay cocktail molotov di ku nek fi war ko mën tuuti pétrole hein tuuti pétrole tuuti tuuti essence fi ñëpp suñu dem lii war ko mëna défar n'est-ce pas war ko mëna défar suñu bop parce que waruñu gañ ñu tok di xoole waruñu tok di xolé xolé dafa xewi n'est-ce pas Euh, lii mooy quatrième point bi cinquième bi dama gis xalif yëpp ndeysaan dama sama xool daf si jeex dafa gën a wane ni Macky Sall faalewul ñu ñuy woñu suñu ay kilifa yàgg naa leen ko wax nag yàgg naa wax leen Macky Sall kilifa yi duñu ay kilifaam pourtant Idriss Seck bu ñàkk jom bi nga xam ne dañu ko yónni tey n'est-ce pas di ko di ko yónni tey pour mu jéem a saltel waxam manduwul te comme d'habitude utilisé na ay tuuti aaye ak ay xadisam comme il a l'habitude de le faire parce que naa féq la n'est-ce pas euh, mbir mi dafa nek mbir bi nga xam mbir mu sirri la khalifi Macky Sall war len leen ni faalewu len ñom ñëpp wax nañu ak mom n'est-ce pas ñom ñëpp wax nañu ak ñom waye Macky Sall faalewu len donc aujourd'hui nak man xalif len ni ñaan japp na ni war nañoo joxe euh, ay ndigal ndigal bi ci jitu moy ñu jox ndigal askan wi n'est-ce pas euh, ñu bañ di yaq allu jàmbur ñi bañ agression parce que man damay gis jamono bi ay agression xam ne ma metti nous sommes pas dans une lutte pour agresser nous sommes pas des pilleurs donte nak lutte bu nek am na ñuy rax ñu bëri dañ les rax ñuy rax duñu ay touriste n'est-ce pas suñu ay dom lañu suñu ay rak lañu peut-être dañu bokkul ay réalité ñu dañoo am une réalité de restaurer la démocratie de ce pays là ñam ils ont des réalités peut-être alimentaires des réalités yoo xam ne euh, ñu dans la pauvreté une pauvreté bi xamé que l'État a entretenu que l'État a créé pauvreté bobu nak tamit wax deug yalla ñu ko prendre en compte parce que révolution bu mu mën ci doon

leen bu leen tirer bal vrai ci kaw askan bi ma dama puni ni ñaari ndigal yi ñaari ndigal yi lu obligatoire li nga xam ne moo tax jamm am ndax man damay waxante deug teel rek tax nak un nervi bu approcher sama kër ak bal ak ay pistolem wallahi azim bal vrai la utiliser contre ñu tamit di rey parce que liste de défense yalla mo ñuko garantie alcorane alquran ku la bëgg ray ray ko ku la bëgg ray ray ko li moy wax ji ku ray sa mbokk ray leen ko tamit nit ki warul ray paré tok impuni et dafa yag sénégal chaque fois nit ki di ray numu ko nexé te du muju fenn ana xalé ñu ray centenaire daaw ak daawat jamono alternance Abdoulaye Wade ana xale yooyu ana xale yu ñu reyoon ci jamono Macky Sall ana xale yu ñu rey durant règne de Sall chaque fois xale yi la ñuy rey pourquoi toujours ñuy ñuy rey xale n'est-ce ñu war a rey ay xale ba pare mu toog impuni rey bi dafa war a dagg te rey su amee euh, fayu am léegi rey bi jeex donc aujourd'hui na gaa yi xool bu baax a baax la stratégie il faut que ñu nekk dans une stratégie pour mën a defanteeg doomu aadama yi ndax ñii bëgguñu suy jàmm ñii dañu dañu bëgg fàggaagal ñii dañoo paré soo xoolee la communication de du du gouvernement soo xoolee la posture euh, de de de Macky Sall nga xam dafa paré pour dem jusqu'au bout fas wul bàyyi fas wul dellu ginnaaw dafa fas yéene réprimer le peuple il va il va faire beaucoup de morts et loolu pour mu def ko il faut que mu appuyer sur une police sur une gendarmerie bi nga qui est inconsciente de son devoir ni c'est les missions de maintien de l'ordre mission maintien de l'ordre warul ànd ak ay balles vraies ñu koy tiré ay doomu aadama n'est-ce pas du yoon. Et donc, on doit être euh, en phase avec nous par rapport à leur stratégie. S'ils veulent nous éliminer, c'est bien bataille. Ils ont, choisi, ils ont choisi. On respecte ces choix. Ils ne sont pas assez patriotes. Ils ne mesurent pas les enjeux du moment. Ils nous obéir à ces despotes-là et ces crapules qui vont nous abattre bientôt. On doit réajuster notre stratégie. S'ils veulent nous tuer, nous tuons-les. li daal mooy la réalité bi nga xam ne mun ñu ko euh, bàyyi ginnaaw kon na xalif yi joxe ndigal comme que Macky Sall moom faalewul seen ndigal nañ bàyyi Macky saal nañ jox ndigal taalibe yi na taalibe yi bàyyi agression beeg sàcc bi barki dem maa ngi dégg ne am na kenn ki xam dañu ko violé ndeysaan fële ca Kër Massar benn gabonaise yi nga xam ne du sax sénégalaise ñun lii bokkul ak li ñu xamoon ci peuple sénégalais di violé ay nit di sàcc àllu jàmbur di dajj ay garage jàmbur di jël ay scooter di ko sàcc ko yóbbu lii c'est ko defoon Afrique centrale wax dëgg yàlla ñuy comprendre xam ah, ñoom tàmm nañ def loolu Macky Sall daf ñu plongé ci benn réalité bi nga xam ne c' est pas notre réalité et ñun nag bañ koy fal nekkul lii la ñu bëggoon ñu woowuñu ko woon ci lii laaj ñu ko woon lii sasuñu ko woon lii xaar ñu ci woon moom lii donc Macky daf ñu wor Macky a ah, dafa dafa dafa dafa dafa trahir son serment Macky def ñu wor Macky def ñu fen moom ak mboolemi ay nitam ñu ngi sax ba tey di ñu fen dafa dëgg yàlla fen weesuwul ñu toog si ay plateau télé

dafa am doon woowee un dictateur dictateur bokkut ak Macky Sall li ma def nii ki c'est un despote ki c'est un imbécile buy agir kese c'est pas un dictateur un dictateur c'est un magistrat bi nga xam ne bu ñu demee jamono bi nga xam ne la démocratie dafa am dafa dafay bëggee parce que la démocratie dafay càng quand il y a plus de dialogue possible quand les gouvernés euh, bëggatuñu leen di gouverner n'est-ce pas quand les gouvernant gouvernants ñu déglu ñi nga xam ne ñoom la ñuy gouverner lii yëpp dafay andi benn bëgg benn arrêt ou ben ben panne de la démocratie jamono boobu on nommé quelqu'un qui un dictateur pour que nous restaurer la démocratie di jox ko mandat six mois six mois bi si six mois nous avons les bases la démocratie defaraat aujourd'hui nous wax dëgg un man dama Sénégal sama ma taala moo may wax dama gëm dafa toll fee un peu de Sall mii fas yéenewul un lire entre les lignes dina tëj dafa bëgg tëj Ousmane Sonko muy benn ñu nag xeex ñu sax kese pour Ousmane Sonko euh, muy benn waaye euh, au-delà tëj bi dafa bëgg jaaree foofu annuler waale toutes les revendications populaires pour toroxal ñu xuuxal ñu ba ñu xam ne ah on a échoué toog kon eh, jàpp si yàlla ndax Macky mu ngi ci moom dara dafa bëgg ñu jàpp ni mu ngi moom dara ma wax nag ne Macky sàll euh, hypothèse am moo foo moom dafa am benn hypothèse yu fausse yee nga xam ne moom lañ ko joxee n'est-ce pas muy lan muy dañ ko wax ne ko sénégale dafay sóob sénégale ñemewul lu métti sénégalais euh, suñ ko mënul continuer benn fan ñaari fan fa lay yem bu ñu reyee benn rey ñaar fa la ñuy yam parce que sénégalais xamul direct sénégalais tapette la il se trompe lourdement le sénégal de 1960 le sénégal de 2000 le sénégal de 2021 ku japp ni ba bataille c'est le même sénégalais c'est parce que tu as des problèmes en sociologie maanaam kon yow anthropologie xamuloko kon yow jango les les les mutations sociales yu am les mutations yi xamé acte politique politicien di poser ak ak ak rage bu ñuy animé alimenter chez les gens organiser ces mutations là donc aujourd'hui notre démocratie elle est en panne panne il a plus de dialogue possible entre nous on peut pas dialoguer avec un gouvernant bi nous avons sax lu xonk suñu ay kon kuy kuy dañ morceau bu xonk dafa carrément ni lu xonk kon kon dafa daf ñu Ni avec ni avec acteurs politiques ni avec le peuple donc aujourd'hui bu dee dañoo egg si niveau bi nga la démocratie dafa càng wax dëgg yàlla l'armée man j'en appelle à l'armée l'armée est très responsable maa ngi ne seetlu fépp fu ñuy dox ci biir dëkk bi ñu ngi nekk dans le sud ñu ngi am benn convivialité ñu ngi am benn benn benn benn benn benn rafetal ñoom ak askan wi ñoom ils sont ils ont compris que waruñu rey le peuple dañuy ñëw di di di waxtaan ak population yi xam ne ñoom ñoo leen war a aar armée nag mission am mission bu ëpp solo moi, garantir les frontières garantir la paix intérieure garantir la la la paix des populations. quand je parle de l'armée je ne parle pas des généraux je ne parle pas des généraux c'est des corrompus Mon généraux je les connais n'est-ce pas euh, je connais ces généraux là généraux euh, ils ont été nommés euh, par un lobby étrangers qui nous ont placé fi généraux ils ont passé grade général en donnant cette ay soxna seen ay jabar nous nommé. Euh, dañuy dañuy joxe seen ay jabar ñu di jëfandikoo seen ay jabar pour di leen nommer ce qui ça passe au plus haut sommet de l'armée fi ñëpp xam nañ ko euh, ñi xamé ils ont utilisé la loge pour ñu mën leen nommer ñëpp on les connaît mais yalla dafa def ni du général moy def moy def moy def coup d'état c'est pas en général mo mën mo moo jël euh, responsabilité l'armée en en 2000 ba Abdou Diouf perte élection yi ñom Tanor Dieng waru ma ko tudd sax ndax génn àdduna ak état major Abdou Diouf bi euh, préparé vous pour décréter état de siège pour génnee l'armée de la population L'armée, armée bi les généraux ont dit waxtaan armée bu responsable ont dañoo woo euh, le président bi monsieur le président tu as perdu les élections donc tal de qui vraiment waroo taal de donc on a toujours eu une armée vraiment responsable ñi avons xam ñoo le pouvoir dama les officiers qui sont là surtout les officiers supérieurs qui sont là commando commandants colonel, colonels entre vous vous devez pas accepter que ñu yàq la démocratie. Vous ne devez pas accepter que nous y de qui. Aujourd'hui, si nous cette année, l'État a reculé, déployer les militaires, déployer les gendarmes et les policiers pour nous tirer. Nous, nous sommes population qui par pour nous protéger, pour nous réunir. Demain, nous devons nous mouiller, nous n'avons nous sommes n'est-ce pas Nous n'avons suñu ñun Nous on veut la paix. Si nous avons ko am, si nous voulons la paix, nous sommes prêts à faire face et nous allons pas nous dérober. Nous ñu nous dérober. Donc aujourd'hui, j'en appelle à l'armée qu'ils prennent leurs responsabilité qu'ils stoppent Macky Sall ko dem jàppi ji ko euh, denc ko ba dissoudre assemblée nationale parce que l'Assemblée, assemblée bi problème bu ñu actuellement ce brasier là l'Assemblée nationale sénégalaise c'est ce andi de par par par l'homme de par ñu koy instrumentaliser comme ay comme ay instrument euh, au service d'un président dama ne dissoudre assemblée nationale nañ jël benn régime bi même quitte à ce que ça soit un an notre militaire gère le strict minimum ñu toog waxtaan naat ci Sénégal bi ñu bëgg Sénégal nous ñu le Sénégal, nous Sénégal la constitution Sénégal ñu n'est-ce pas ñu changer les pouvoirs exorbitants du président de la République Nous créer un conseil dama ne ñu dans un pays là ay dans nekk fi bëgg administrer jël en compte administrer ay chrétiens dans ce pays sans autant prendre en compte euh, le corpus je veux dire judiciaire légal sociologique de ces chrétiens là dama Sénégal gëm la on ne peut pas ignorer et le christianisme suñu bëggee tabac de bi on ne peut pas ignorer le legs de nos ancêtres si nous ay l'imam pour tabac de bi on peut pas avoir des institutions qui ne nous parlent pas c'est des institutions importées Institutions, yëpp institutions françaises la 4 quatrième république il y a la dama ne ça ne correspond pas et ça ne nous parle pas dama ne na armée sénégalaise de responsabilité maa qu'il y a des fake news les gars ont commencé créer ils ont commencé à créer des fake news Ils ont commencé à ay des intérêt terroriste c'est faux les grands terroristes c'est Macky Sall ak ay ñoñam ñi les grands terroristes qui xam ne ñoo bëgg taal dëkk bi ñu dëkk bi mu encore une fois beaucoup mu tak nous devons le défendre nous n'accepterons pas ñu ñu ñu dox suñu kaw nous n'accepterons pas de nous ñuy parce que nous sommes en train d'exercer un droit c'est un droit constitutionnel le droit de disposer de nous-mêmes le droit de marcher fu mu neex le droit de ne pas avoir de restriction sur l'ensemble du territoire sénégalais le droit euh, à l'information dama ne tous les droits ont été bafoués dans ce pays journal sax télé bu télé bu djup sax di joxe information bu baax beugatuñ ko bàyyi mu def liggéeyam ñam Walf couper signal Walfadjri couper signal Sen TV képp ku taxaw di waxal deug samay morom yu bari ñi xam ñu yon taxaw def ay live di waxtan japp nañ ñi ñi yóbbu leen teg leen gis nga euh, xex dama ne xeex dafa bokk ci ADN doomu adama tay dama xol gis sama gis sama col bi col bi ambassadeur Israël euh, ambassadeur Palestine Sénégal euh, moo ma may ba ma koy may daf ma wax wax bu am solo bi wax bëri daf ma marqué daf ma ne ñun ba ñuy juddu parce que moom Yasser Arafat moo ko yar moo fay ay jàngam ba ñu affecté ko def ko ambassadeur de de la Palestine fii au Sénégal mu ne ñun bu ñu juddoo n'est-ce pas bu ñu juddoo ñun ñii ñëpp euh, nous sommes des projets de martyrs ñun ñëpp ku si nekk mu ngi ñaan yàlla euh, bës mu mën a dee pour dëkkam ba ma ko waxee euh, j'étais pas choqué mais dama comprendre pourquoi ñii nekk ay xeexkat dama ne quand on parle euh, d'armée on parle pas de régime de terreur on parle pas de régime de guerre soyez sérieux dama ne su armée bi euh, jëlul responsabilité am dëkk bi dina am benn sang bu nganda nganda te benn sang bi nag dama jàpp ni plus ils vont venir ndax li alxuraan wax ak naan wayn uttum udna plus ils vont ils vont activer direi plus on va s'organiser ñun tam dañuy rey waaw ndax ku la rey ku la ko war a lii mooy la loi de Dieu Allah subhanahu wa taala lañu jàngal donc euh, may wax nag ne encore une fois di rafetlu nag taxawaayu suñu bépp euh, kilifa diine yi il joue euh, génn si mbedd bi du seen taxawaay yi n'est-ce génn si mbedd bi du seen taxawaay yi taxaw di yuuxu saajalu seen taxawaay yi seen taxawaay mooy xool njekk njekk ak teranga ak li ñu xam ci Sénégal damay Sénégal bi ñu xam laa wax ñun bi ñu juddoo màggee fi du Sénégalu violence du Sénégal bi nga agresseurs aujourd'hui ils ont carte blanche di agresser doomu alama di satchi fu jambour yi ñun bañuy yuuxu di casse pour suñu démocratie di xaar pour la restitution de nos droits ñu won nit yi di waté waxu ñu won ñuy piller ay àllu jàmbur euh, bien vrai que nak dommages collatéraux mënul ñak waaye dommages collatéraux yi euh, warul supérieur deug deug à nos ambitions ak à nos objectifs dama ne man je me reconnais absolument pas à des pillages ak sàcc ay moto jambour

message soom la ñu ndaxte euh makki ndaxte Macky mënul toog bëgg xañ doomu adamay jamm jàmm ba mom moom soom mu nekk ci jamm loolu ñun sénégalais yi war ñu ko nangu ma ngi dina gaay yi waxu nañ ko nañ baye sonko ñun laaj ñu ñu baye sonko du baye sonko na baye sonko ma na ñak baye sonko c'est son problème dama ne ñun dañuy laaj ni que réew mi nga xam ne ñu ñëpp ko bokk dañ ci war am notre mot à dire dañu wara dañu wara amando ensemble une une vision de ce pays là dëkk bi ni mel aujourd'hui ñun neexuñu engagé wuñu rafetlu wuñu ko li nak moy wax ji

Macky doit dégager on on veut plus de Macky Sall comme président si on est dans un pays sax bi nga xam ne dañoo dafa ersatz de démocratie mais dans la démocratie c'est quoi Là le principe le principe c'est le principe de la majorité aujourd'hui bu faites dafa am un million cinq personnes qui ont voté pour Macky Sall comme président c'est vrai c'est légitime même bu dee man man rafetlu mais c'est légitime parce que ñun sommes en république si on a 2 deux millions trois millions de personnes qui ont voté pour taxaw ne veut plus de lui comme président on doit pouvoir avoir des dispositifs des mécanismes qui sont constitutionnels, qui sont légaux pour pouvoir le faire partir. Opportunité, on ne le donne pas. On ne donne pas l'opportunité de destituer un président, n'est-ce pas Et ce n'est pas sérieux et ce n'est pas normal. Regarde le document des États-Unis. Mais ils ont des procédures, c'est des procédures d'empêchement. Il y a même cette possibilité, ou il y a des représentants qui euh, neexuñu wala kii lu muy qui, ak lu muy doxal bokku lu ñu digaale woon kii na fi jóge dama ne Macky li mu nekk def yépp nekkul lu ñu digaale Macky dañoo dañoo nit yaar ñu tooñ nag gars yi chaque fois motax erreur bi def ci Macky wartuñu ko defati dama ne dañoo wara a fo la a dañoo di mer ak di sanctionné waté n'est-ce pas sanction ak mer lañu wara bayyi té di agir en toute responsabilité c'est le problème de base moy la base du Sénégal fondement yi mo baxul il nous faut refonder ce pays et refondation bobu wax deug yalla tôt ou tard nak la wax elle va nécessiter un grand sacrifice japp naa nak man jamono bi jotna c'est à nous de nous sacrifier mënta ñàkk ñi nga ah dinañ dal seen kaw mënta ñàkk ñi nga xam ne leen jàpp mënta ñàkk ñi nga tamit mën na am seen bakkan rossi waaye warul nekk luy luy nax saa yi waruñu engagé euh, benn combat muy combat bu bu bu bu sérieux di combat bi nga combat bu bu bu profond la combat la bu war a defar suñu dëkk bi ba pare nit yi toog euh, mu am benn ñaar ñetti dee gars yi bàyyi soo baa on aura on aura trahi ñaar ak ñett ñoo nga ñoo si dee léegi nag euh, li am ba am mooy lacrymogène waruñoo téye par rapport à ce à ces gens là mais lacrymogène ku mu nek problème outal masque masque yi bo si défé vinaigre sol sa masque lacrymogène du la andi problème beut kese la mëna joylo lu nek yi nga xam mom lañuy sol pour def natation lunette ci 1000 francs lay jar nañ ko jënd c'est que dañu daf ñu ko wara jaral qu'on mette des lunettes yi nga xam euh, lacrymogène du dugg suñu ay qu'on qu'on qu'on s'immunise contre les fumées qu'on qu'on mën def face à ces gens là ndax fi aujourd'hui wax yalla yàlla euh ci waxtaan ndax kiñ ko séqal buggul waxtaan n'est-ce pas buggul waxtaan fi ya aucune force occulte n'est-ce pas il y a aucune force occulte dans ce pays l'occultisme au plus haut niveau mo ñi nga xam ne ñoom la franc-maçon yi ngemb et Macky Sall est en premier n'est-ce pas mom ak régime bi nga xam ne góor jigéen ci ëpp ay franc-maçon ñoom ñii ñoom ñoo nekk devant la puissance occulte bi nga xam ils sont en train de brader ce pays là

jël le budget bi nga suñu ñu leen ko jox ñu ko l'appareil de la justice c'est un pouvoir bi qui devait garantir suñu cohésion sociale ñu jël ko de ses objectifs instrumentalisé instrumentaliser pour éliminer ay pour fitnal ay nit pour pour pour pour pour pour pour ay dama ils ont trahi les plus contrat bu on parle de contrat social euh, contrat social faux on n'a pas de contrat qui nous lie avec ces gens là ces gens sont là pour leurs intérêts ils sont là pour nous opprimer nous nangoo nak ñu opprimé ñu alhamdulilah kon na Nous tok toog ñi bëggul xex tok leen seen ay kër c'est pas que vous vous dérobez que dañoo war encourager tout le monde à se dérober vous voulez pas vous battre pour ce pays l'histoire retiendra cela mais restez à carreau et laissez-nous nous battre nous nous battons pour quelque chose de très sérieux demain démb vendredi man ma ngi won place de l'obélisque ma ngi xol ben allée bi nga c'est des milliers de gens bi nga xam musuma gis li Sénégal gis fa ay nit je xam ne bu baaxa baax li gëna am solo seen gi mo seen hadratul juma ñu hadratul juma dañoo toog foofu ba timis di di di di di jaayante ak di méttitlu li nekk di xew ci dëkk bi yaakaar ni ay gor lañ ko séqal gor yi xam ne dañu xool ne ah suñu askan mer nañu suñu askan sol nañu suñu askan ex nañ si benn niveau bi nga xam ne niveau bi kat mosu fee ñëw ñun nañ teg lépp ci suuf nañu waxtaan ak ñoom nañ def ay concession dama ne printemps arabe ba mu amee euh, ñi intelligent woon mu ñu mel ni comme buuru Maroc Mohamed Mohamed VI dafa def ay concession concession dafa mooy dundal démocratie mais taxaw bëgg téye lépp entre tes ne keneen du am benn pouvoir lii baadoo la koy def xaja koy def te xaj ak baadoo la xaj warul jiite doomu aadama yàlla dafa ne wax la xat karab naa bani aadama ñun doomu aadama yàlla teg ci kaw lépp lu mu bind waru ñu nangu xaj di ñu jiite waru ñu nangu mbaam di ñu jiite waru ñu nangu ay golo di ñu jiite te ñetti ñii ñoo fees suñu kaw euh, di bëgg toog suñu kaw bopp yi te lii wax dëgg yàlla nag yàlla daf ñu teral daf ñu màggal daf ñu jox masuuliye bu foor a foor daf ñu jox responsabilité bi xam ci kaw suuf dañu kat la tufsidu bil ardi vous voulez créer le bordel sur terre. Macky et son équipe sont en train de créer le bordel sur ce pays-là. Et puis bi nag ma fàttali leen affaire De Kibi, de Maam Limaamu la dëkku Cheikh Ibrahima Niass la dëkku Serigne Touba la dëkku Serigne Hadji Malick la dëkku Cheikh Omar Fouti la dëkku ñoom Maam Boukounta Ndiassane la dëkk bii laa wax kilifa yi fi jaar kilifa yi ko taxawal kilifa yi nekkoon di fi jaamu yàlla bàyyi fi ay secret ñuy walangaan c'est ay njaboot di doxal dëkk ñii ñoo téye dëkk bi te li ñu bëggoon ci dëkk bi bokkut ak li Macky Sall nekk def aujourd'hui ci dëkk bi dama ne aujourd'hui Macky Sall war na suñu ay maam war na diine l'islam war na kilifa diine fi nekk war na askan wi war na sax intérêt ëllëg suñu doom yore ñëw ëllëg ndax beaucoup de beaucoup de trésors beaucoup de richesses yi nga qui devait bénéficier à nos générations futures suñu ay doom ak suñu ay sët Macky Sall jël na jox ko ay kilfam, jox na ko bi donc ñun aujourd'hui nak ñun Sénégal la ñu am Sénégal moo jaral lu ne Sénégal la ñu gëm waxuñu pour merlo kenn waxuñ tam pour kontaanloo kenn ay nit woo dañu naan non c'est-à-dire yéen ay intellectuel ngeen vous devez vous départir dama ne un intellectuel son rôle c'est d'être un avant-gardiste son rôle est d'être engagé aux côtés de son peuple dama ne mooy rôle artiste mooy rôle euh, citoyen citoyen bi mu ci doon rôle enseignant yi rôle syndicaliste yi dama ne aujourd'hui ce combat là dafa dépasser la reine politique ils ont pris un fait divers ils l'ont di ko di ko guux guuxal di ko li miir miiral di ba mu aujourd'hui mané liko fi andi delloo ko ginnaaw te li ma gis ni aujourd'hui que kanam lam am amul tànku il faut que Macky cesse gis naa tey nag euh, le combat s'internationalise et et dafa mu ngi doog a taxawagul dama né aujourd'hui CEDEAO euh, toute la presse internationale ñu commencé am un discours sérieux bi xamé xam c'est qui est Macky Sall xamné ya y a de l'oppression au Sénégal parce que wa bi dofuñu de xam nañu baax lu Macky liggéey dëkk bi Macky c'est un vaurien bi nga xam qui n'a aucune personnalité daf ñu sax yàpplu ci aduna bi yëpp xaaraan ñaanaatu euh, annulation de dette yu ñàkk fayda gis la nekkee ci àdduna bi Macky Sall il n'honore pas le Sénégal dama ne kii il a trahi le Sénégal depuis longtemps et bu fekkee dañu ko waroon yóbbu haute cour de la justice Macky Sall mérite d'être traîné au niveau de la haute cour de justice Macky pour haute trahison dafa waat respecter constitution Macky li muy def nii yëpp c'est contre la constitution Macky piétine la constitution parce que faalew ko Macky nguuram la gëm ak askanam ak ay ñoñam ak ay landamayam ñun nag bu dee moom jaral na ko lii yëpp na xam ne ñun jaral nañu lu ko ëpp ñun te incha rabbi Macky aura des jeunes très engagés des jeunes déterminés bu dee dañoo war wallahi asim nañ dé ben yoon waaye kuy dé na nga dé ci lu ko jar duñu dé parce que ñoo toog suñu ay kër ñu fekk ñu fa dóor ñu dee googu ñun yéene ñuko suñu bop dé ci biir kër ñuy opprimé ñu ñu on préfère génn ci mbéd bi xeex ba dé fofu mo ñu gënal dama né ñun mënuñoo tit génération bu bees bi imagine toi ay jeunes qui sont diplômés jàng euh, am xam-xam laaj ñu lu may liggéey

Nous ram des rabaissé ci kanamu des gens yi sont c'est des crapules c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des lâches ce sont des idiots en majorité donc wax sais pas euh, man je sax ni Macky place en prison kese la war a nekk warul ci prison laa wax Macky Sall on doit donner un exemple C'est du Macky Sall c'est ñun on parle pas ce geste là qu'on est en train de poser on parle à l'ensemble des acteurs politiques qui espèrent un jour diriger ce pays là nous dañu que le peuple Sénégal du sommes ay nama nooxi nous sommes ay dof n'est-ce pas du ay golo te du ay tamit nañ ñu respecté on doit se ndax ñun kat wax dëgg yàlla duñu jël mbooleemi jumtukaay teg ko sa loxo di la fay di la neexal di la jox lépp li xam ne pour t'entretenir ba pare nga bëgg ñu piétiner bëgg ñu fontoo dama ne lii ça doit cesser di dafa nekk message fort bi nga xam ne fii la ñuy jaaree Sénégal lu mel nii du fi amati ñu teg lépp ci yoon te lii nag moo tax may woo ñi nga xam ne ñooy les forces vives xalif généraux yi joxe leen ndigal ci wàllu googu lii mooy suñu dernière ñaan bi leen di ñaan kon que Macky mbaam la respecté leen te faalewu leen ñu ngi leen di ñaan ngeen bañati ko ñaan dara ndax ki nga xam ne joxul cër sa kilifa ñun waruñu pousse suñu ay kilifa ñuy wax ak moom ñun nag di leen jox cër ni leen fonk dañ leen nangul dañoo gëm ni dëkk bii ñu war a dem da ngeen am baat da ngeen ci am taxawaay jox leen ndigal force de ñu bañ a tirer balle vraie ndax buñ tirer balle vraie gëm naan suñu révolution yi ko def te benn deret du tuuru ndax bëgguñu kenn dee ndax force de yi ñu fa nekk suñu ay rakk lañu suñu ay doom lañu suñu ay dëkkandoo lañu suñu ay xarit lañu ñun bëgguñu jaamarloo ak ñoom ndax ce ne sont pas nos

pee du ay wax pee du taxaw kenn ku yor ay gànnaayam di rey doomu aadama yi tax naan pee dama ne ñaar ñuy xeex kenn ku téye yat di dóor keneen ki ku ñëw taxaw au lieu mu téye borom yat bi mu naan borom ku ñuy dóor muñal muñal dóor gi léegi mu jeex dama ne naaféq nga ku bon nga yal na yàlla alak dama ne jamono bii laax képp ku ne Macky Sall mu ngi si dëgg seytaane nekkal koo mën ci doon seytaane nga képp ku ko questionné ci lu muy wax ni tamit seytaane nga képp ki xam ne mu ngi layal Macky Sall tam seytaane nga dëkk dafa am fi mu toll fi xam ne da ngay déterminé wu il faut se déterminer il faut se dire la vérité il faut qu'on prenne pas de gants pour voir des te tax que nous sommes ma wala ñu keneen sommes ñu ñu nous ndax li ñuy nous doxal li ñuy nous suñu ay esprit Macky Sall na sax pour ci am accès ba on peut pas nous empêcher de réfléchir on peut pas nous empêcher d'émettre des avis on peut pas nous empêcher de participer à la gestion de ce pays là bi ne ñun pas ko faire. dama ne nous ñu nous depuis des décennies ñu ne ay pas di dama ne muntul continuer trop nak c'est toujours trop euh, wax deug yalla gi dal moy waxtan bu ndaw bi nga xamé ne na ñu waxtan ko euh xawma nak tamay duggal c'est na Ousmane parce qu'il m'avait euh il m'en avait parlé donc xamna euh, euh mu na ko jël mom jëlaale tamit kenen euh mu nek laajante biir ndax li wax deug yalla li mom muntul continuer donc euh, tôt ou tard nak ñepp ñu am xel te di xalat xamoon nañ ni Sénégal dina egg ben niveau bi nga xamé du dem ci parce que naxanté da fay am limite. auto auto so ci defee ben ben ben gasoil bu ndaw mais fam am fam su fa tollee oto bi soo cuqee du tak donc ñëpp on comprend ça depuis longtemps so xolé ñuy neexalante entre ñom di joxante ay privilèges di di di nargué askan bi di ci di gëna ndol di gëna son di ñuy toroxal gaay dem ba jamono bi nga di perteloo askan bi yaakar seen biir dëkk ñuy daw di jël ay gaal pour dem bitim réew nga xamni kon dëkk bi espoir amatu fi so dee xolé émeutes gis ay nit di ñëkënté ay méw ay sucre ay bonbon ay café nga xamni sincèrement ce pays là il va très très mal li nak wax deug yalla man yéeme ma ko sénégalais yi maa ngi lek nag amna luma ndiki amna luma agné xalatuma dem au champ pour pour djel quoi que ce soit té li wax deug yalla dama koy déconseiller sama mboolem compatriote dem djel ay mbir yi nga xam ne dañ koo pour jox sa riba baxul si bir direct baxul ci askan baxul ci gor ñun suñu problème moy Macky Sall champ bi nak gis na sen directeur def ay def ay def def def déclaration déclaration ñak jom la def bi wax 1700 sénégalais il est en train de violer 16 millions de Sénégalais bi ñoo ko ko 1700 familles de Sénégalais dama ne Auchan son contrat depuis le début ñu dañu koo méttitlu di condamné di ko xeex di ko di bañ ne Sénégal dañu dindi contrat yi da contrat yi nga on a des réalités on a des chartes yoo xam ne Sénégal ko signé mën nañ mën nañu laaj il mbir yoo xam Sénégal laaju ko te lenn kese moo ko waral Auchan dafa ñëw di may fondation première dame euh, servir le Sénégal may ko xaalis may ko ay dons euh, pour mon, pour mu neexal ko ci président li yag na fi Cosmos ak Franck Timis ni la demee woon dafa xool rakku président jël ko neexal ko bolé ko ci conseil d'administration jox ko ay intérêt ay action pour mun ko dugal ci entreprise am euh, dëkk ñëpp say saay nekk bitim réew yëpp suñu bëggé intégrer le Sénégal dañuy contourner la loi contourner les réalités fiscales les réalités les réalités yoo xam ne réalité financière ñuy dund dans chaque pays dañ koy contourner en donnant des dons di may ay teranga doomu président wala jabaru président wala rakku président euh, li yëpp au détriment du peuple sénégalais dama né nañu yeewu yeewu jotna fii ku fi toog nag bëgg nelaw wala ñu lay nelawal sa affaire la soo bëggul xeex sa droit la man contraire ma kenn ku bañ a xeex waaye tam bu kenn ku bañ a xeex di jéem a di jéem nelaw la askan bu kenn xeex dañu war a xeex dañu war a xeex pour teg dëkk bi ci yoon dama ne ñoom Cheikh Omar Foutiyu dañoo xeexoon waaw ñoom maam Canaba dañoo xeexoon ñoom El Hadj Abdoulaye Niass ñoom ñoom Mabba dama ne fii dëkk bi ñëpp dañoo xeexoon dañoo xeexoon pour dara dañoo xeexoon pour un idéal idéal boobu ñu xeexoon aujourd'hui fa lañ ci toll est-ce qu'on n'a seen xeex nous devons de restituer xeex boobu teg dëkk bi dëgg dëgg fi mu war a nekk te dëkk bi fi mu war a nekk mooy saatal mustaqim mun ñu ko teg fenn mu dox mun ta nekk waaw dëkk bi foog ñëpp yem ñëpp bokk maandu te li wax dëgg yàlla aujourd'hui on a qu'un responsable bi nga kii doit payer de ñëpp ñu dee qui doit payer de la situation catastrophique de ce pays là qui doit payer de l'économie de ce pays qui doit payer du grand détournement qui doit payer de askan bi alalu mbooloo gu mu jël tasaare ko jaay ko maye ko kii kenn kese la il s'appelle Macky Sall buñ ko daxante buñ ci nax suñu bopp te kii nii ala kulli xaal wallahi azim il va payer